jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 20 mai ci atum 2021 ñu xëy ñëw ak yéen ci journalu sunu lamb fekk di fay affiche am solo mbëtt mu rëy la ñu jàpp fa fee nga xam ne nii moom moo di ci arène nationale xëy na dafa naroon a ñëw ngir seetaan si programme ma ñëw dem ci los officiel a yooyu xam ne nii moom moo di gala ca fim la quatorze au 17 mai ci atum 2021 Obli moo remporté loolu nga xam ne moom moo tournoi yi fa amoon rëg xam ne nii moom moo guy gi doy seen première face to face ko amal ci dimanche bi nga xam ne nii ca la ñu jëm bataille verbale ce waaye ki xam ne nii moom moo di Gris contre ma ki nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 di 2022 moom pour la revanche de Tapha Tine ak xam ne nii moom na boobule waaye ki xam ne nii moom moo di Ibrahima Mbaye mise à l'écart par les CNC moom Ibrahima Mbaye moomu daal waa nañ ko foofee nga xam ne moom moom moo di ca xatum sunu lamb ba koy defee fekk waaye champion yu solo moo di Bébé Balla Ousmane Gandigal ak ki xam ne nii moom moo di moom moo di xam ne nii moom moo Sorsu waaye bu ñu demee fi xam ne nii moom moo di ca xatum sunu lamb dañ fekk ki xam ne nii moom moo di Sarko samedi bi nga xam ne ca lundi le 25 mai ci atum 2021 Modou Awa défi par ki xam ne nii moom Baboy daa taxas ki xam ne nii moom moo bu Kër Massar fésal par ki xam ne nii moom moo di Mouhamed ki xam ne nii moom moo di fils de day nañu ko bàyyi xel bu baax a te siibur ko ndax image ki xam ne nii moom moo di Balla la yor ci sax boo ki xam ne moom moo di Ama Baldé ki xam ne nii moom moo di Papa Sow Siteu ko sës ci miir bi bu baax a baax ki xam ne nii Fall bu Jurbel doxoon ci digganteem ki nga xam moom moo di Modou Lo lu ay journée bi nga xam moom la di ca Jurbel waaye ki nga xam moom moo di Balla Gaye de début de la musculation foofee nga xam ne nii moom moo di ca INSEPS ki nga xam moom moo di Onda le Fou ki nga xam moom moo di Bougane Gueye Dany réci par Bougane Gueye Dany moom Onda le fi nga xam ne moom moo di ca jalgati lambo kañu fay fekk mooy ki nga xam moom mooy giri lenn a xajal ma ma dugg loolu rek mooy am moom Gris Bordeaux la mu tontu moom moo di booy kii kay dama koy daan may ma rek ndam rek lay wut te dinaa ko am yéen ñi ko lambu actualité lambu te ko suivre ci télévision bu mag bi xam ne moo Bawal TV tuddee kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp lekk kees xombal bambay ak tunengal mag sew kabak la ñaar kër dama kër saer calndul ak ak bawal siin saalum fuuta ak juróom ñëpp actualité ci atum 2021 ak Assane Ndiaye jiital Baol production incha allah Baol production avec Baol TV